mbokk internautes yi dal leen ak jàmm Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé de l' action sociale ci jamono bi nga xamante ni nag ñoo ngay jooy liir yi nga xamante ñoo ñàkk seen bakkan ci hôpital Magatte Lô bu nekkee ca duwaanu euh, Linguère ci moom nag état bu Sénégal jaarale ko ci moom ci la ñu nekk nag taxaw euh, di ngand ngandalu nag ak a ay mbagg mel ni ku fi def nag loo xamante ni am ab exploit la loolee nag ginnaaw moom mi nga xamante ni nag moom mooy Diouf Sarr def benn entretien ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Modou Sarr nekk nag euh, li nga xamante ni nag mooy moom Modou Sarr nekk directeur ex sax directeur bu hôpital Magatte Lô mi nga xamante ni nag moo daal di lakkoon keroog ca crèche ba amoon nag liir yu si jot a ñàkk seen bakkan dafa daal di nag annoncé ne dafa démissionné wante nag Diouf Sarr weer dina ko ba mu set wecc nee na démissionné wul waaye dañu ko daal di licencié mu mel ni nag nee na yéeyaay benn paala boo xamante ni wala benn exploit loo xamante ni état bu Sénégal mi nga xam ne dafa constitué wu en héros national moo ko daal di nag def moom Diouf Sarr mu mel ni dafa mujjee sax ridicule bu ñu sukkandikoo ci yenn internet yi nga xamante ni ñoo daal di na commenté euh, li nga xamante ni moom mooy ay propos wam xam ne ni nag ni dafa ridicule bu toogee tey fii nii nag enquête bi fu mu daal di toll ñëpp di xaar ak a laajte lan moo daal di indi boobule lakk ak i tamit na mu daal di def ba egg fi mu egg ba ñeenti liir daal ci ñàkk seen bakkan sa saasa ndax lakk ba daal kalsi ni maanaam xëm te nag xamuñu gardien fu ñu nekkoon ña doon garder hôpital ba ak itamit ña doon garder na crèche bi nga xamante ni nag moo ëppoon ñoo xam ne dañoo vulnérable te nekkoon ci boobu le l'hôpital ñëpp nekk ay laaj yoo xamante ni nag moom la askan wi di daa xaar ay tontoom fu mu doon ni rawatina nag way jurub liir yooyu le ñoom état bu Sénégal amuñu leen lu ñuy def lu dul nekk fi di dàgg santé directeur bi ne moom dafa démissionné ñoom ñu ne démissionné wu dañ koo daal di licencier maanaam dañ koo daal di dàq ndax nag sàggante bi xam ne nemmeeku nañ ko nag ci mbirum nag lakk gi am ci hôpital Magatte Lô ah, ba ca ah, diwaanu ah, Linguère moo mel ni nag fu mu toll nii nag dafa mel ni dañoo bëgg a jël mbir mi nag daal di koy laq-laqal ndax kenn waxatu sax lu jëm ci mbirum enquête bile enquête boo xamante ni sax jot na révélé keroog ne ki nga xamante ni moom moo doon nag daal di garder crèche boobu le dafa demoon nee ñu sangu ji ba mi di am mu mel ni nag loolee mooy da ni moom mooy nag sàggante bu ëpp boo xamante ni kenn mënu koo daal di nag ndax naka nga garder ay liir yoo xamante ni naka dañoo daal di naka am lu dul ay jour ñenn ñi ñaari fan lañ am ci kaw suuf ñenn ñi ñetti fan ñenn ñi ka fa gën a yàgg semaine la am ci kaw uh, suuf naka ñu ne la garder ko xaar nga war a xaar permanence bi ñëw ngir daal di leen naka seconde wala boog mu jël relais bi yow nga uh, daal di naka uh, dem def li ngay def wala nga wàcc wala nga génn de garde defoo ko lu dul nga dem naan da ngay sangu ji loolee nag enquête bi moo ko daal di révélé ca njëlbeen laataa naka cappaandaw la nag euh, question bi nag euh, fi mu ne nii mooy Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni nag mooy ministre de la santé nekk nag tutelle bi jiite lépp lu jëm ci wàllum wir gu yaram fii ci diwaanu Sénégal euh, di de ko tontu ak itamit dagg santé ak hôpital bi nga xamante ni nag directeur hôpital bi nga xamante ni mooy hôpital Magatte Lô ci diggante dañ maa dàq wala bokk damaa démissionné. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la pour recevoir